waaw salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen de ziare bu baax a baax waa communiqué bi jóge ci COPIL ñoom ñi ngi ko génne ndaxte fan yi dañu gis ay jëf yoo xamante ne euh, day yàq image parti bi moo tax mu am ay tere yoo xamante ne euh, ñoom aussi euh, tere nañ ko bés ni ko tey léegi xaaral ñu faram fàcceel leen ko bi njëkk mooy logo parti bi ak image président Sonko ak couleur parti bi nit ñi dañ koy utiliser léegi nu leen neex te dañ ci am ndigalu kenn loolu nag euh, waa COPIL ñi ngi sàkku si nit ñi ñu wàññi ko waaw nekkul ne ku nekk fu la neexee rek nga ñëw utiliser image parti bi wala nga utiliser logo yu parti bi wala couleur parti bi wala même image président ci affiche bu la neex ak nu mu la neexee donc loolu moom euh, COPIL bi mu ngi koy ñaawlu te wax ñu wàññi ko. beneen bi aussi beneen bi aussi ñi ngi tere collecte de fonds maanaam di dajale ay xaalis di laaj ay xaalis ay cotisation di ko dajale te secrétariat national aux finance bi supervisé wu ko parce que parti bi dafa am secrétariat national au finances maintenant moom bu fekkente ne yëgul tinul loolu di yoon ngay dajale ay xaalis di laaj ay cotisation et ça te nekkoo nekkul ne euh, secrétariat national au finance bi supervisé na ko loolu dañ koy tere léegi beneen bi tamit beneen bi tamit euh, communiqué bi mi ngi ñaawlu tamit di tere euh, li ñuy wax euh, collecte de données maanaam ñi nga xam ne dañuy laaj militants yi seen tur seen sant seen adresse lu ñuy liggéey tout ça ba pare di ko utiliser te kenn xamul fan lañ ko jëmee après donc loolu dañ koy tere données personnelles yi moom dañuy tere léegi ñi nga xam ne ñu ngi koy laaj militants yi loolu dañ koy ñaawlu. parce que gis nañ fi ay groupe yoo xam ne ak yooyu bala nga faa dugg foog nga joxe sa tur joxe sa sant joxe sa adresse joxe sa numéro carte d'identité et tout ça loolu dañ koy tere loolu dañ koy tere waaw beneen bi mooy communiqué bi mi ngi yëgal nit ñi ne lii di gpm mooy groupe pastef massification nekkul instance officielle boo xamante ne mën naa jël ay ndogal ci turu parti bi waaw donc loolu moom mi ngi koy yëgal ñëpp ne ñunu suñu instance officielle yi nga xam ne moo nekk ci parti bi GPM amu ci bokk ci loolu aussi mi ngi koy yëgal nit ñi waaw donc communiqué bi aussi mi ngi xam ne ñi nga xam ne dañ leen considéré euh, li nga xam ne Pastef reconnaître ne leen comme ay militant mooy ñi nga xam ne dañu nekk ci instance réglementaire yi ñi nga xam dañu nekk ci instance réglementaire yi ñi nga xam ne nag nekkuñu ci instance réglementaire yi donc Pastef mënu leen reconnaître comme militant parce que instance yooyu par euh, Pastef reconnaître ko donc communiqué bi aussi mi ngi xam la ne ñi nga xam ne dañ leen considéré euh, li nga xam ne Pastef reconnaître leen comme ay militant mooy ñi nga xam ne dañu nekk ci instance réglementaire yi ñi nga xam dañu nekk ci instance réglementaire yi ñi nga xam ne nag nekkuñu instance réglementaire yi donc Pastef mënu leen reconnaître comme militant parce que instance yooyu par euh, Pastef reconnaître ko beneen bi aussi mooy que ne communiqué bi mi ngi ñaawlu mi ngi ñaawlu vraiment Pastef tamit mi ngi ñaawlu bépp activité politique ci événement religieux yi donc événement religieux yi euh, communiqué bi mu ngi siy tere di si ñaawlu bépp activité politique waaw